asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan xaas TV sëñ bi maa ngi lay nuyu di la tey moom mënu mënu moon euh, euh, mënu mënu moon a ñàkk ñëw. moo tax tey nga moo des pour élection yi. nga ndogu si. ñëw ndogu si ñëw macha allah macha allah waaw kontaan naa trop sax. waaw mais sëñ bi. élection yi daanaka léegi moom jeex na c'est fini. Mm-hmm. loolu lu ma jaaxal Diomaye fay mm-hmm. lu ñuy gën a jege élection yi. gars yi di ko gën di ñëw di wuy si. ku si mel ni PDS bu Ablaye Wade suñu maam ñëw na. Amadou Ba aussi li élection yi di gën di dem mbooloo bi di gën di yokk dama see am ab jaaxle. ma ñëwoon nag pour nga daal ma si kii gën di noo gisee waa PDF bi ñu ñëwee jàppale ki nga xam ne mooy Diomaye Faye. jaw dikkati na ginnaaw bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu ziyaare ah. di santaat yàlla di julli ci yonent bi. Ah. di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin eh. di wax gars yi yaa salaam 313 nañ ko def bisu dimanche bu ñu xëyee ci kàttanu yàlla ah. yéene ji yéene ci ah. koo xam ne ndeysaan hmm. man damay wax ni hmm. <coughs> sonn na daj na lu ne hmm. ah, ngir Sénégal xeex na ngir Sénégal lu ne dégg na ko ngir Sénégal li li mu waxaloon boppam daat ni lenn rek laa déggagul mooy sëyi na noo am na doom waaye lépp rek dégg naa ko muy Ousmane Sonko nañ ko defal 313 yaa salaam deuxièmement ñu yéene ci it oh. yàlla mm. def ci jàmm ci réew mi jaw mm. euh, mm. course boo xam ni <laughs> am am na am deux am trois ñu nekk ci cercle bi di wër quatrième bi puus na tey. ah déet waxi olof nag xam man ñu naan xaas xama nga xam nga kilifa xam nga yàlla ba muy wax def ni borom xel yi laay wax. la. il faut nag ñu am xel. ah dëgg yàlla. jaw ah. il faut ñuy xalaat. Ah, waaye xaas mënul tëb ni xaas wax na fii. ah loolu xaas. la ma dala la ma la commencé woon wax. lu mën a xew ma ne la jaww eh. tànk ba jaww kii ba jaww kii ah. nit noonu la mais tey mbir yi fi mu toll ah. mënoo tëb nga ni ta am na lu wax yoo xam day taalub réew da day taalub réew ah, te deuxièmement mm-hmm. nit des fois nga indil ko noonu yoo xam ni maara day taali ndax des fois nga gis ñoo xam mën nañ la contre nga wax leen ni fekk ñu def leneen te ku ne xam na ni mm. bukki wiiri wiiri jaari ndaari waaye ku ne xam na ni mm. reen ci suuf mm. reen a ko féete suuf parce que réew noonu lay doxee kon bàyyi leen ñuy junj tey wax ak boroom xel yi. am na ñoo xam ne nag boo leen ni woon sax sa kanam ñu la pourtant non sëñ mënoon ngaa tudd bët bi mënoon te kanam gi kanam gi kanam la rek. nit ñi am leen xel. waaye course bi daal. waaw la. <laughs> amal na <laughs> ñaan yàlla. <laughs> waaye billaay ndeysaan. na ñaan yàlla ci réew mi yàlla def fi jàmm. dimanche nañ ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm. ah bu dul loolu dina doy waar parce que tey jaw xam nga mbiri élection toll na foo xam ni moment bi danger na toll na foo xam ni moment bi ku ci nekk lam la jaral jaral na la ko te ku ci nekk la nga bëgg a def pare nga pour def ko. waxoon si euh, am na parti boo xam ne dafa am mhm. euh, mhm. xam nga xam nga xam nga luy cat. jaw ah, te yow mën ngaa romb fii. def dara euh. kenn du ni jaw xaas romb fi def dara ñëpp ni xaas dafa am parti boo xam ni boo déggee man la parti Pastef dafa am cet ku ne xam ne ne parti Pastef dafa am cet xam nga li cetu parti Pastef ku ne xam na ne tey par exemple Ousmane Sonko fi mu jaar lépp dara sonalu ko lu dul yoon ci cet cet gu ànd ak nattu te cet ku mu munul laal amul ak anam bam lay jekkoo ñi mu daaneel dëgg sonal leen dëgg foog ñu tëdd kasa baa ñu tëdd feebar est-ce que dégg wax foog nga tëdd kaso baa ngi tëdd feebar mu ngi mel ni nit ki xam nga tey baro jëkki eh, jaw àdduna dafa tëddee ci ñaar gis nga programme yàlla jeex na jàll na mm-hmm. waaye mayu yàlla day taxaw waaye lan mooy dëgg dëgg may yàlla jaw xam nga yàlla may na la jaw nga mën a xool sa bët mu yem fii nit xool bëtam mu profond ko keneen xool mu gën a profond moo tax yow fi nga gisee ngay waxee kee gisee fi mu waxee ku la gisee fi mu waxee waaye yéen ñëpp seen bokk gis-gis bu soobee yàlla day bàyyi ba bis ba mu dindi seen gis gi yëpp dugal lu ko ci na soob te kenn du ci man dara moo tax mu ni la foo waxee neel insha allah parce que lu neexul yàlla du existe. Ah, si campagne euh, gis ay signes yoo xam ne ah man moom hmm. rek. pale baa ah. naa la fii ne la ah, jëwal ak bu bëgg dugal nag ci la nga xam ni ah. dafa dafa compliqué ku ne xam na ni booy seet lu réer ah ñu ne la fii la ne eh. di ko bale jekki ko wala nga xool ko ndax la ngay seet ca tëggaloo ca te seet seet la bale lu tax ñun la bu ko dóor sax. waaw baaxul ci moom. cin ñu ne la boo rombee góor tegal ci suuf door koo rob parce que ay aadala yoo xam ni moo la fi jiitu mag la fi waaye bàyyil kon bale da nga mën a jàpp ni moog indi dafay tojtal eh, eh. fas boo demee dëkk eh. dëkk boo xam ni miinuloo fa xamoo fa kenn ñu ne la nga tëdd fa gént fa fas bu weex fas bu xonk bul fa fanaan ndax dëkk boobu ci guerre lay mucc waaye boo demee dëkk gént fa fas bu weex toogal sa dëkk boo kon tey xam nga fas waxoon naa la ko ci benn combat waaw gis nga booy bëree ki ponkal eh. ku ci nekk ak côté ba mu jaar mm. ku ci nekk ak fa muy gisee dafa am loo xam ne boo ko defee tënga leen maanaam réer nga leen ci biir gaa yi kon gaa yi réer nañu ci biir gaa yi mu ngi mel ni ñu ni bukki bukki bëtt bant bukki bëtt bëttam bukki bënt bat bant bëtt bëttam d'accord dégg nga yooyu pourtant bëtt na batt bi ba pare waaye batt bi bëtt na bëttam kon réew mi yàlla pare na waaye dimanche te deuxièmement nit ñi nañu yeewu xaas bu ne surprise dina am maa koy tojal sama bopp. am luy surprise ah, mais surprise mooy tey bis bu ne nga gis combat am nga foog ka nga foog. Hmm. ci sa xel. Hmm. la nga foog du sotti parce que am nga surprise kon. catu Pastef mooy Sonko waroon a nekk président Sonko waroon a waroon a kii te doonu ko loolu rek cat la waaw mais cat bu dàqu da koy def léegi leneen li taxaw man naa am sens ci waxi olof nit dafa yeewu. dëgg la jël junj rek ku si mel ni Bassirou bon ñëpp neen macha allah parce que jël téléphone am ki nga xam ne mooy Kakarim Wade. Hmm. ne ko pour mu jàppale leen liggéey. Hmm. Hmm. mooy Jomaay Jomaay Karim. ba léegi ñoom dem nañu jàppale ki nga xam ne mooy waa Pastef. loo gisee ko. waaw c'est normal xam nga nag yàlla jaw programme am du juum. gis nga nag euh, yàlla bu la namee dimbali nag dañuy wax ni dangay ngay ànd ak kuy dem. nag d'accord ma nag vraiment. ngay toog te doo ànd ak kuy dem. fekkal nit toog. nga bëgg mu yóbbaale la nga toog rek yaakaar naa di ngeen xëy bëgg dépasse mu tëlee moo tax ñu la boo bëggee dem da ngay ànd ak kuy dem boo bëggee toog nag ànd ak koo xam ne bougé wul fa mu toog kon réew foofu la toll gis nga jaww mu neex mu nakkari nit ñi dañoo war a bàyyi xel te xam ni def defu yàlla jaam tuuti na ci lijjanti ko xawal naa la lii de ñaar ñi nañ leen bàyyi xel parti pur ak jomay nañ leen bàyyi xel. waaye nag naagu óorul xam nga xaas buy wax dafay wax noonu doo comprendre. baax na man nii man nii laa bëggee. naagu bi <laughs> nii laa bëggee. am na ñu koo xam ni. Eh. baatin baa ma ca jaaxal wallahi wal xayr wal kitaab eh. eh. billahi lazi la ilaha illa huwa ndax liy jóge ci kaw di wàcc lii di jóge ci suuf di wa di di di jóg ah. allahu taala ahlam eh? bis bu ne nga gis nit moom bis dem ba ci digg coppandaw ba lay soppi bis ba kenn du ko xam moo tax ma ni yaa salaam na ko gaa yi def de. d'accord su mhm. euh, coono bi mu nekk di dund actuellement nii ba ñu ngi koy waxam lu nekk ak coono bi muy dund nii. wàcc ci terrain bi lekkatul naanul sa maanaam Sonko talul sax moo yey. gis nga ndeysaan li dama ko dama ko xool ma yërëm. gis nga Ousmane Sonko dund na ci coono lu homme politique dundul fii Sénégal. Ousmane Sonko grève de la faim Ousmane Sonko yéen ñëpp jaaxle woon ngeen ñëpp ni dootul jug ngir Sonko ñàkk na liggéeyam ngir lan bëgg réewam Ousmane Sonko daj na lu nekk ba xam nga tey. mën naa ne man maa ngi Sénégal nit sàcc na alal ma sama yoon nekku ca waaye nit sàcc alal mu taxaw ni da koo def uniquement parce que jàpp na ne alal boobu mu sàcc tey mënoon naa jariñ Sénégal tax mu dénoncé ko wala tax mu tudd ko lu ne man ko cee fekk kon kooku daf leen ko waxoon projet bi du Ousmane Sonko rek léegi daf la doon firndeel ni kon comme jiital la Diomaye te xoolal lim doon taj te bu doon jëmmi boppam mënoon na faa bañ àgg kon lim ni la projet bi du du Ousmane Sonko rek projet Pastef dafa yaatu kon dëggal nga ko. parce que li mu ko dëggalee mooy li mu dem di wër ci àll bi lu ne mu koy daj moom Ousmane Sonko. deuxièmement man nag jaw xam nga man noppi garmi laa yor te lu rafet rek laa xam du ma wax lu dul lu rafet dama déglu Amadou Ba euh, quartier général mu wax fa wax bu ma frappé biñ ko laajee euh, loo xam ci ñoom comme waxal nañ la lii mun ko man nag yàlla dafa mën a du ma wax lu ñaaw. samay xarit samay rakk lañu te ñu baax lañu baat boobu dafa ma frappé ndax man damay wax ni gis nga wax bu rafet lu mu la mayul rek safaan du la ko du la ko du la ko may te jamono te loolu lañu soxla politique mënuñu ko jàppee xasteeg wax lu ñaaw wax safaan te jaru ko gis nga programme yàlla àgg na jeex na te mat na kon am na ci loo xam ne jarul sonn jarul wax lu ñaaw jarul wax safaan. mooy ban. <laughs> ay tey fooy jëm hmm. bi ñu ngi jëm si bisu dimanche. Hmm. si euh, ñetti candidats rek laay laaj. Hmm. mooy Bassirou Diomaye Faye. Mamadou Dia. ak euh, Amadou Ba. ba su dimanche maanaam. bu leeral mais mën nga ma junj rek. mooy seen wàllum biddiw seen wàllum rawxaan. si ñoom ñett. Mm-hmm. <laughs> seen wàllu biddéew. seen wàllu roxaan su ñoom ñett bisu dimanche ñuy uti ndam. Mm-hmm. <laughs> ah Diop. <laughs> tey foofu du ko baax. xanaa dañ laa xanaa dañ laa yónni. kenn yónni ma kenn yónni wu ma. xanaa dañ laa préparé. wala wala li nga la. non non non sànq. Mm-hmm. Euh, dañ toog di ndogu. ñu ndogoo par ban café. ñuy waxtaan ci wàllum. rawaxaana vidéo mu wax lu am solo. lu am solo. Hmm. léegi yoo xam nga ne xaas dafa bëgg xam-xam. xaas dafay waxtaan ci xam-xam xaas am bëggul lu dul xam-xam ndax tey. Euh, dama gëm ni xam-xamam ma may diplôme ci wàllu faj. dama gëm ni fu ma àgg tur bi fu ma àgg xam-xam moo ma fa àggale ak preuve waaye dama lay dimbali ci ñaari mbir. deuxièmement it jaw xaas amul numéro Tigo. ah oh, oh. xaas amul Facebook moom laa waroon ubbee. yéen ñii ñuy nax lillaahi wa rasuuli. Mm-hmm. lillaahi wa rasuuli bis mu ne ma wax ko jaw dimbali ma. xaas amul numéro Tigo xaas amul Facebook sama numéro bopp mooy bii affiché mooy 77. 711 24 39. boo ma jotul ci boobu jaw mm. nga woote ci 78. 181 67 18. lii lay war a suuli bu dee wàllu rendez-vous wala nga soxla xaas urgent wooteel ci 78 181 67 18 77 711 24 39 mooy numéro Ablaye Diop xaas lii laay war a suul vraiment. xaas dëgg. waaw nga foog léegi am naa ay numéro yu bari. waaw waaw waaw da ngay dugal numéro bi ni faux numéro Ablaye Diop xaas. justement arnaque pour gars yi bàyyi ci xel. deuxièmement jaw dugg nga ci wàllu rawxaan ah, ma naan. may ma si deux minutes yaa ma fi commencé loo de. kon kon dagg ko. Ah, non yaa ma fi commencé loo de te day <laughs> sama yaram man sama yaram xam gisoo may naan. Euh, jaw <laughs> ah, lan mooy rawxaan. bismillah jaw hmm. yàlla buy fal. lan lay fale ak fi nit di xool uh-huh. ak fi boroom xam-xam di xool uh-huh. lan mooy wutale li waral nit judd rek ca jëba nga xool ko xam ni kii day doon président te doona ko noo ko gisee parce que gis nga ba mu toogee yow mm. biddéew baa nga ca kaw mm. di fànk rek di kiliñote rek ñu ne la ah, diw am nga doom bu jooru judd de bàyyi ko xel kilifa lay doon wala diw am nga doom sàngam bul ko jànni bu mer mukk parce que rawxaan bi xam na jëmm ji mu couvrir ba bu meree rek du la jig parce que fa ñuy xool ak yow fa ngeen xool bokkul am ci yenn rawxaan yoo xam ni dangay gis nit tey dugg ci làmb taxaw ca géew ba ñuy xool fan la rawxaan bi féete ak lan mooy rawxaanu géew bi tey looloo waral ñuy jël xorom di wis muy wër ñuy dugal seen loxo ci suufu saaku yi mais di xool lan la lan fan la seen yëg-yëg féete parce que fan la rawxaan bi nekk mooy rawxaanu géew bi waaw kanaa koo koy joxe ndam nit ñi nañu yeewu yàlla programme am da koo def ci ay nit def ko ci ay mbiram comme ni ngay xiifee duy lekk yëg ni sa biir ga rek toogal ni yàcc sa bopp di metti nga di doo dem hôpital da ngay xaar yàlla faj la parce que yàlla jox na la xel moo war a mën a demee hôpital faju léegi da ngay gis sa li ñu la rawaan bi féew la mais dimanche am na rawaan boo xam ni moo gérer bisam hmm. am na léegi nag problème bi mooy di nga gis tey nga amoon yéene dem ni kii laay voteel dem duggu sa xel joxaat la keneen loolu mooy waral loolu. dem dugg laax de sa xel joxaat la keneen par rapport ak ka nga doon voteel ute na sax ak kooku déjà. te pourtant ba ngay dem sa yéene du woon lool kon lan moo détourné jaw xam nga jaw moom bis bu ne mu détourné bis bu ne tey mu ngi ci Anta Babacar Ngom suba mu ngi ci Pire léegi mu ngi ci Pire ànd nga ànd nga dé génn de Pire moom doo fa génn waaw doo fa génn moom <laughs> voilà waaw doo fa génn rek parce que Aliou du jaa <laughs> borom compétence la te macha allah ah, te ku liggéey réew la parce que liggéey réew du ñu fës rek xaalis xam ne Sénégal am na ñu ne ci suuf <laughs> li ñu liggéey réew eh. ñi ci kaw liggéeyuñu ko léegi dibaas boobu mm. léegi mu nekk jongante Amadou Ba biddéewam taxaw Diomaye biddéewam taxaw Aliou Mamadou Dia biddéewam taxaw léegi nag gaa yaa ngi nii nii léegi biddéew yi nooy xamee ni bii mu ngi ëpp doole bi da ngay gis ñi bokk parti bee ñenn commencé wàññeeku di dem fii est que dégg bu baax seen liggéey parce que da ngay gis ñii di effacé wu. Mm-hmm. jóge fii di dem fii parce que lee moo leen arrangé. kon biddéew kon kee biddéew mu ngi commencé di bouger léegi nag boo gisee mag ñi moment bi bu ñu fa tollee sarax rek. moom rek parce que kay ma wax la de ku la raw tane la wallahi ci sarax la la jiitoo moment bi moment sarax la ku loolu la ci waay wax daf lay nax parce que moment ñëkkante la te fas. tey boo fasu kut ba jëlee lu nga ko wóolu wóolu dina dem ba toll ba wax da nga koy tàpp. waaw wala ngay bif kii bi muy pour mu gën a parce que te xam nga ni pourtant mu ngi daw mais na nga koy làbbali làbbali boobu daf koy yokk jom léegi sarax nag muy bëmëx. mais nag ñi nga xam ne dañuy rey ay dereet wala dañuy sacrifice ku ci def sacrifice moment bi yaay féete a xam nga lu tax. boo defee sacrifice féete ginnaaw yow li ñuy wax waxi xaan ngay wax waxi jinne foo jëm am na ñoo xam ne jinne leen sonal tey allahu akbar mun a wax lépp <laughs> sacrifice sax amoon na ci élection yi heureusement euh, Diaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah vraiment mënuma <laughs>